من لو الختاب بذاته لحبه ويستطاب لطيف يا الله وعلي صل على محمد خير الوضل الذي على حق الوكيل الجامع الجليل ولي يا مؤمن الجميل قائم يا باقي علي كافي قدوس يا عزيز يا معافي قد تقتدر عن ربي من ذنوبي معترفا بها ومن عيوبي وسعت الرحمة والغفران لا تغلط قولك يا رحمن أطاعت النفس على أمر الهوى ولا تبالي ربنا بذا النوى لأنك المعبود حقا لا سوى يعبد ربي تسمع لسداك هود البرايا سيد الأكوان صل علي قلق الإنسان أول يا آخر يا رقيب الفرد يا مغني ويا حسيب دفعك عنا كيد حاسد حسن وعاند وكل حاقر حقد يا واحد الدائم daqa sañ sa ñëpp te du daagu ci mbett ëpp doole ñëpp te du kenn ah dégg naa ci sëriñ Mansour si mu baax ni rakku sëriñ Moustapha mu ni laysa bi karimin man laa yahuzuhu zikrul habib koo xam ni bu ñu tuddee ka nga ni moom rekk nga bëgg doo yëngu nee na tedduloo ki dàq solu ñëpp ma ni dàq sañse ñëpp te am lu mu sañsee te du daagu ci mbett yi ma ni kana ki raw ñëpp te kenn mësu ko déggee mu dégg mu werante masala ma ni kana ci ëpp doole ñëpp te mësul duma kenn te ñu dëkke koo tooñ kana xam nga kooku nan lay mel dafay toog ci benn barab di joxañ yàllay def yéen ngi noo ngi dégg naa ci Cheikh Al Hadj Abdoul mu ni dégg na ci Thierno Seydou Nooru Taal mu ni jële na ci Seydil Hadji Malick mu ni taalibe bu àndeek sëriñ ngir defaru bu jëkkee ba fëgg dënnam ni man gor piir laa nee na nañu wacc boobu taalibe kenn mënatu ko defar man góor piir la bés bu ko taalibe waxee rek yàqule na te dootul defaru ba mukk sëriñ bi wax nga léegi ci sa wax waxul Seydi Mouhamadul Moustapha nee nga du nee na ku ànd ak man du yàqule mukk waaw gisal Cheikh Seydi Aboubacar sëriñ Moustapha daf ko donn Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz doon na Cheikh Al Hadj Malick Seydi El Hadj Malick Serigne Amad Sy taawam sunuy nopp dafa denc ca ndar soxna suñuy wax yame saaw am beneen mbokku taalibe boo xam ne dana war a maaseeg moom at denc ca ndar ñu bokk jamonoy denc sëriñ amat si jëm ndar Seydil Haaji Malick bind mu xaddam yi ci diggante Tiwaawoon ba ndar ni leen ëmadoo nga jëm ndar lu ko waaye mën a dimbalee na ko fekk mbokk mooma moom it jëm ndar ñu bokk jamono yi ñu demee ca ku nekk nga denc koo koy taalibi Cheikh Al ba ñu bokkee daja ndar taalibe boobu ak sëriñ Amar si moomu nganaleeg sëriñ Amar si gën a duun gën a duuf nganaleeg mbokkum taalibe mooma mbokkum taalibe ma daldi def ci boppam ni alaaji Malick daf ma sat dimbale doomam bàyyi ma ba tax mu bàyyi Seydil Haaji Malick ay at Maodo di ko laaj ana diw di ko gëj na fi de a diw gëj na fi Maodo dal di xam lu ko kenn waxul dal ne ah waaye Malick day du seetaan ku yàqule ngir moom Malick du seetaan ku yàqule ngir moom dal di dagg paas fekki mbokk ma moom Seydil Hadji Malick dikk ni ko Malick du la seetaan ba nga yàqule ngir sa bakkan dal di koy delloosi si yeesal ko defal ko lépp mu demaat ca palaasam toog xoolal kooku dab di ko Seydil Hadji Malick dab moom la alaaji Abdul Aziz donn ci Seydil Hadji Malick ba ku rëcc mu dem dabi la delloo si waaw xoolal Cheikh Seydi bañ gi mu bañ ku gaaw a yàqule moo waraloon dégg ja tekk ja ak caractère ferme boo xam ni boo dikkee ba bëgg ko engagé war a yàqule kanam ga rekk la lay arrêté dootoo jàll mukk ci àddina ngir boo ko xuusee rek dugg euh, ci kàmb gi xoolal xamoon ni safaray reyee noonu la ndox di reyee waaye riir mi safara yi riir ak tàngaay ba tax na ku nekk daw safara ba tax ba tax dana la yéex a lakk lool dana la yéex rey waaye xoolal dex sedd gaag neex ga ngay xuus muy neex ngay xuus muy neex nga ni du lor di dema dema dema dem ba ni sërëx ci kàmb gi te mënoo fee jësig ji jàpp la xoolal mooy Cheikh Al Hadji Aziz ak Serigne Babacar Sy dañoo bokkul ay maratib لما من يقل في شيخ الحاج عبد العزيز من لا يقل في سرين بابكر ندخ سرين بابكر بوي اكسي كاركتير با دانا لا وان فيغا ورا يام با دوكو جيك لول لا سرين مصطفى دون نتي موم با تخ يقو لا تي موم دانا جافي لول وا كو ديك امنا ليميت تدوني كين يامال في جيسنا سرين دون سا باي جافي وول déedéet di sa donoy bàyyi moo jafe waaw di sa donoy bàyyi moo jafe waaye doon na sa bàyyi jafewul te alhamdulillah tariqa bi bii nu nekk di tariqa sayid cheikh ahmad tijani radiallahu taala an seydil haaji malik sant na ci cant goo xam ni nee na الحمد لله إذ ما في طريقتنا إلا مراد ومحبوب ومقبول جسل مريد أك مراد تنزل بن مريد شيء مخم مريد الله مخم مريد درهم مخم مريد الجاهي moo xam muridul ilmi moo xam muridu nangam yépp la waxu loola nga nekk la la nga jublu la waxam nga la wax dara tax na laa jóg nga takk sa ndigg ngir bëgg ko am kookoy muridu waaye tariqa bi muridu amu ci déedéet muraadu moo ci am ndax muriidu moy ki nam ma wuti nangam muraadu moy ki ñu nam ma jëli waaw waaw xolal mawdo ni alhamdulillah maa ngi sant yàlla iz ma fi tariqatina nekul ben talib ci sunu tariqa cheikh bi le illa muradun wa mahbubun wa maqbulu yàlla la namm soxlool la boppam dugal la ci tarixa bi ngir moo la nammal boppam muraat nga waaye doo muriit muriit mooy kuy wuti amaana mu am amaana du am waaye muraat mooy ki ñuy wuti fi bëgg ñu am ko bañ ñu am ko waaw muraat ak mahbuub ak maqbuul ñoom dong ñooy ahlu tarixa cheikh mahbub mooy kii yàlla sompal boppam ba lépp lu mu ni yàlla lii laa soxla yàlla defal ko loola te di ko xaar ba mu dikkit mu defal ko la soppee def ka mu sopp mahbub ak kan maqbul ubbil naa la bunt bi kat loo laaj ma jox la boo laajul nag du ma la jox dara waaye nag loo loo ma jaamu ma nangu loo ma ñaan ma nangu loo ma santit ma def maqbuula ngóob Maodo ne ñett ñooñu dong nga nekk ci tariqa Sayyid Cheikh Ahmadou Tidiane alhamdulillahi isma fi tariqatina illa muradun wa mahbubun wa maqbulu ñuy wax wilaaya gis nga wilaaya ñeenti xaaj la ak saadik ak majzuub ak majzuubu saadik ak saadikul majzuub waaw ak saadik ak majzuub ak majzuubu saalik ak saalikul majzuub saalik mooy muriidu saalik mooy ki sóobu ci yoon wi bëgg a ndar kooku mooy saalik ndax dana àgg ndax du àgg fini waaw kooku mooy saalik majzuub mooy ki ñu fab otoraay mbaa oto mbaa saxaar dikk fekk ko ci këram ni ko duggal ñu yóbbu la kooku mooy majzum saalikun majzum mooy ki ma dem ndar dugg di ŋàbb tànkam di dem di dem di dem ba jot raw dajeeg oto bi koy jël mu fab ko mottilil ko yoon wa kooku mooy majzubu saalik waaw saalikun majsuub waaw saalikun majsuub mooy ki ñu dogale jël si ko majsuubu saalik mooy ki ñu téye ci loxoom dugal ko ci oto bi dem ak moom ba booru paal ñu wàcce ko ni ko doxal li ci def muy ñeent yooyu gis nga majzuub dafay judduwaale wilaaya waaw saalikun majzuub dafay jóg dugg ci yoonu wut yàlla ba yàlla nangul ko àggale ko majzuubu saalik mooy ki ñu wan yoon wi tette ko ba ni ko yoon waa ngoog wéyal gis nga aada ak xaqiqa dañoo bokkul te lépp nekk ci loxol yàlla aada noo ko moom waaye xaqiqa yàllaa ko moom dafa am kok li sëriñ bi wax sànq gaa ñiy def discours ak di làkk arab yu dul jeex dañoo tardé waaw ka nga xam ni ba muy laata gane àddina fekk na ko dajal kapp kooku bokkul ak ki jóg di jàng di wuti fu mu fu mu jëm majsuub ak saaliku majsuub bokkul majsuub ak saali bokkuñu déedéet ak aada mooy diw mie fi mag sunu bàyyi dee na diwa fi mag moo fi war a nekk aadaangoo ngoog waaye xaqiqa nag moom mooy per mu yàlla ku yàlla bàddil per mi ni ko jaaral fii lu la neex defal il faut ñu xàmme ko te it nag bu leen kenn kenn kenn kenn nax ku mës a diwoo lem gi rekk yamba yi yow lay topp sikk amu ci waaw waaw ku diwoo lem gi yamba yi yow lay topp tax na li nu leen di dénk di ko dénk sunu bopp moo di nu xam li nu am lan la jéem ko jàpp ak fukki loxo dégg naa ci làmmiñu sëriñ Moustapha yow sëriñ Momar njaay daan nga ko dégg booba Seydi Aboubacar nga fi booba non maa ngi xaleel mu daan wax gaaw leen bala moo xat wax na ko ba tey gaaw leen bala moo xat waaw ndax xatul tey hmm? waaw ma ku mu woo kenn ku wuy jiwul ah wa ngeen defe ni kooku dafa nekk saalik wala dafay majsuub majsuuba ngoog ku ñépp wuy ji te woowul kenn kenn xamul carte grise am amu ko de man it dàq sañ sa ñëpp te du daagu ci mbedd mi man ñëpp te du duma kenn te ñu dëkke koo tooñ mani raw ñépp te du werante masala ma ni ku fi nekkal yàlla noonu ngay mel yal na nu ko fi yàlla bàyyi gis nga Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu taala euh, li may bëgg a wax nag ci jigéen ñi laa jëm waaw gis nga sànq damay waxtaan ak sëriñ Momar mi Alaaji Mor ak sëriñ Omar Fall ca kër ga di leen nuy bokk di waxtaan ma ni leen yàlla am na lool daf koy maye waaye am na lool daf koy jaay waaw am ngën ba xol boo dem ci doomu aadama yi la xam ñëpp xol boo dem nga fanaan ca ma ne loolu yàlla daf koy jaay da ngay xëyal yàlla gis nga ku ñu xëyal démb ku ñu xëyal démb boo bëggee bokk ak moom waafu tey xamoo doo dem ku ñu fàggul démb ku ñu fàggulul dara mais sëriñ bi mënuñu ànd waaxu nañu bàyyi caaxaan xoolal maa ngi wax Cheikh Umarul Fuuti radiyallahu taala anhu baayam mi ngi tudd Seydou yaayam mi ngi tudd aadama aadama ëmb na Seydou may nañ ko beneen soxna mu fàtte ko wax aadama ba bés bi ñuy indi soxna si mu dégg coow li ci guddi gi rek ni aadama eh man kat dama fàtte dañ ma mayoon soxna ba ñu ngoogu di ko indi te benn néeg bii nu nekk dong laa am lu ciy xalaat. aadama ni ko xanaa gannaaw ba jege nañu ma tuuñ am ñoom dugg ci waañ wi waañ wa xaddu juróomi at la buy taw ñu ngi wàcc ci biir waañ wi bi ñuy dugg ci buntu kër gi mu dal di tuuñam loog moom moom aadama dugg ci biir waañ wi ak ëmbam bi ñu reeree bay dem tuuti asamaan si xiin anda ngelaw lu bare taw bu bare di dotti adama matu ci bir taw bobu la ba mucc defar bopam ba agal uuf liram, ñu jekki ba njël jot seydou fab satala gi dugg ci wanag wi dégg liir bi naan we mu jatt ni ko adama li lan la mu ni ko ca bopp guddi ga muccoon waaye la déranger tax mu ni ko yal na yàlla def ci sa doom ji barke kookoy cheikh omarul fuuti cheikh alhaaji malik radiallahu taala anhu ba maam ousmane dikkee gaaya te ci gàttal maam Alpha ma yoroo waxtaan ak moom ci dénku ko maam faa wat yaayu Seydil Hadji ba ñu juboo ci kaddu mu ni ko waaye aw ma dara ndongo la maa ngi jóge gànnaar di ñibbi sunu dëkk mu ni ko ma féete la foofu kaaru dugub li wala wala wax kaaru dugub dana toll ci juróom-ñaar fukki kilo moom la maam Alpha génne ca dàmbam dikk indi ko woo no Malick Sow ñu dem ca jàkka ji ñu def wóllëre wa kooku kenn deful ci moom dara waaye fekkoon na ku bëggoon taalibe buy jàng ak kuy wut xam-xam ak nitu yàlla la woon moom maam faa wadd ndax Cheikh Umarul Fuuti yi dafa nekkoon gaaya lu yàgg lu jiitu muy dem penku bay jot salaatul faatih yàgg na fa maam faa wadd sonn ci moom lool ci wërsëgu boppam di ko fóotal di ko baleel di ko toppatoo ngir yàlla ndax ku ñu mas ni kii nitu yàlla la rek maam faa wàdd sëgg na defal la ci teraanga ci ñaqam loo xam ni wut yàlla tax ba Cheikh Umarul Fuuti am na téere bu mu taalif boo xam ci biir gaaya boo xam ne gaaya la ko tudde téere booba bokk ci téere lasraar yi am na ci doomi mag ñi lenn lu ko ñu ko am waaye nag yaatuwul doll bu mag bi Cheikh Oumar demee nag jaar ca Abdou Karim Diallo ca Fuuta Jalon mi mu jëkk a jële salaatul fatiha jàll dem penku ba gisee Seydina Muhammadul Xaali jël ci moom salaatul fatiha ca Makkatul Mukarrama mu defal ko lenn ni ko li ci des nak ndigal lima ci am duma la ko joxe ludul dul ca kanamu yonent bi nga xamni moma sant ma jox la ko ànd ak cheikh bañu dik ci rawdu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dir bobu ñetti at la muhammadul xaalid déj ko ci kanamu rawdu yonent bi ni ko moom mii moo cheikh male ñoo ni naa la jox xilaafa bi am Cheikh Umarul Fuuti soog fay jóge di wër ba ak si ore fonde installé fa waa gaa ya dégg ni sëriñ bi fi nekkoon day ma nga ore fonde ñu def délégation mu fekki ko te ore fonde délégation booba maam Alpha Mayoro bokk ci waaw ci gàttal ndax dañu soxla rajo bi guddi gi ah, ba mu gisee maam Alpha faayda sir ba maam faa wadd faboon jox ko maam Alpha ni ko nga jox ko sëriñ bi ndax mu dolli ma ñaan te sér booba des ca bëkk néeg ba ndax neexal guñ ko doon neexal sér ba des ca te Cheikh Oumar ba mu génnee ne ana Alpha mu ni ko maa ngi mu ni ko ana sama sér ba la sama jigéen ba joxoon ca gaaya mu seet góor gu ñuy wax yokk Musa Géy moo dindi séram ni ko am jox ko mu wuutal ko Cheikh Oumar teg sér ba ci gannaaw moo tax ñu ni ñaari sér la déedéet benn la sér séru yokk Moussa Gueye boobu moo waral ñu ni ñaar la teg ko ci gannaawam ni alfa jox ma sama sér maam Alpha jóg gëdd bëkk ne ba fekk ca sér ba dikk jox ko mu dal di firi sér ba moom Cheikh Oumar dal di taxaw fuuta ñu ne ko taal taal taal mu ni ku ma sa jóge penku wala sowu dikk di ma fekk si walla di fekk keneen di nga wàññeeku dellu ci doomu borom séer bi fi ma yem ci tarixa bi moo fi tàmbalee ba ca doju ngor wala may séen lépp dana nekk salatul fatiha te yet du jóg waaw alfa am ma may la wérd defal la ijaasa defal la litlaq defal la lépp nga dem sa jigéen boobu nga garde ko dana am benn xalel bu jógee penku toll ci fanweeri at bu dikkee diggante ak sa jigéen boobu sëy dana ci am bu ci sëy amee doom ju dana ci sosu doom ju góor jooja mooy doon sama xalifa man Cheikh Omar fu ma yem foofa lay tàmbalee ba ca doj wu gudd wala di ngor ca ndox mu bare ma lépp dana nekk malaanu wasifa li maa oxalee ka te yax du jóg maam Alpha ñëw na garde secret bi garde secret bi ba maam Ousmane bàyyi ko ci daaray Cerno Mahanda Baba ci gànnaar dikk jaar gaaya ñu ni daf doon jàng ci Cerno Malick Sow déedéet booba mën na jàngal Cerno Malick Sow ndax booba dajal na lépp te Cerno Malick sëriñu fiq rek la ci fiq booba bu bu moyee laxdar yoog risaala rek la wal saani kepp waaw waaye nag magum xaadir la moom maam Cerno Malick Sow te maam Ousmane it di xaadir bàyyi Seydil Hadji Malick bi mu dikkee dalal nañ ko ci kër maam Cerno Malick keroog ba ko fa maam Alpha ëndee dalal ko fa maam faa wadd dikk ci maam Alpha ci bët bi bët setee ni ko man de gan gi nga àndal ci daara ji démb dama gént sëy ak moom ba am ak moom doon ju góor ju siiw loolu lan la mu fàttaliku la ko Cheikh Omar waxoon soog woo maam Ousmane waxtaan ak moom ñu négocier ba juboo ci mu may ko maam faa wadd ma ni ko defee diggante ba ma ni maam Alpha yoro moo ko def waaw moo ko def ci diggante sarax ko maam Ousmane may ko ci jigéenam ñu nekk fa ñaari weer ak nàngam maam Ousmane continuer dellu Cheikh Alpha Mayoro dellu ca Cheikh Oumarul Fouti mu ni ko Alpha jërëjëf la ma la dénkoon def nga ko ba xale baa nga nee may seen ca biiru yaayam góor la ñaari weer yooyu ak nàngam lu Ousmane Seck ci gémmiñam faawaat da ko ñàkk te la ñu defee wóllëre wet Alpha ko def kookee la yàlla faye Seydil Hadji Malick mii sëriñ Babacar Sy ci ndar Seydil Hadji malik dañ ko faa xeeboon lool njoolum Fuuta mi lañ ko tudde woon dafa jantarmaan àgg ca kaw xees nopp yi rëy bopp bi rëy baat bi neex te du wax mukk lu dul tukulóor ñu tudde ko njoolum Fuuta mi roosu siidi mi bokk ak xaar yàlla siidi mi jur roqaye njaay moo amee woon roqay njaay ndax xaar yàlla di dafa faatu woon ñu fab xale bi dénk ko tàntaam ci kër ab lay Sëy roqay njaay moomu foofu di kër ndey daaray alaaji malik te roosu sii njaay moomu moo daan fab xóoñ ji di ko jox si alaaji malik ci buntu kër gi ba mujj xale boobu dal ni man de njoolum fuutamii ku ma ko may ma ànd ak moom doomu ndar yi protesté xam nga dañu bëgg àddina yow sa moroom yi làppatoo yi booba commerçant làppatoo lañ koy wax nekk fi xalaatu lu dul sëy ak ndongo li njoolum fuutam yi kenn xamul fu mu dëkk mu ni yàlla ma tax di wax ba ñu demee ba amatuñ ca pexe ñu ni Maodo indi li nga am amul ñetti su Mor Masamba Jéer yi moo fab yalwaanu ndongo yi dem jaay ko ca marché dikk moom lañu teewal moom la ñu defee wëllëre woon Mor Masamba Jéeri Jëng ñu génne ko kër ga mu dem ci benn taati escalier foofa la fab basangu barax lang-langal ko fa nekk fa ak maam Roqaya Njaay wàcc na taaku kaw bu moom maam Roqaya ngir yàlla ànd ak Seydil Hadji Malick at mooma di 1889 1879 ñu jóge fa dem Maodo ni ko nan dem sababu dem ga am na ñu ni booba la Maodo sañ ci njaar nde njuum te la Maodo dem na ci benn bitigu naar di fa leb sonde ko bokk ñu ànd di bay ñoom Seydi Aboubacar tudde ko Babacar Alaaji Malick Sarr moo ren di xarum tudd ma waaw bañ ko tuddee Babacar ba noppi la alaaji Malick Sarr dikk ci Seydil Haaji Malick ni ko man dey soxna sii bi ci sa xel nekkee di soxna roqee maak tafsir Amadou Baro njëgan nga dugguloo woon xalwa nuy seeti mbiram waaye dama ci gisoon lu ma la waxul léegi nag ma fàttaliku ko ci xale bii ñu ngénte dama ci gisoon benn ceenu leer bu jàpp ci jumba ko soxna si dem ba réer ci biir asamaan ma laaj ci ñu ni doom la ji gane àddina sa digganteeg moom Babacar lay tudd mooy doon xalifa cheikh mooy doon xalifa yonent bi di sa xalifa ndax Babacar mooma a gisoon mooy mii walla déet Maodo ni ko am Babacar a ngoog bu ca kanamee ngeen xam xoolal maam Roqaya Njaay nettali na sama yaay sama yaay nettali ma ne boot naa baabakat nee na am ñaari fan yu ma lekkul bañ naa dindi mbootu mi léegi maa daanu Maodo xam ni dama faiblesse ndax xiif nee na mbootu mi lay tëddaale ndax xam na bu ma koy tekki di daanu nee na ci yoor yoor bi Maodo ni ma ah Rokhaya waaw man di xale bi ñaari fan yëpp fabuma ko indi jox ma ko nee na ma won ko gannaaw teg ci mbootu mi bi ko Seydi Laaji Malick di jël ak bi may wadd ci suuf di benn ndax xiif nee na Seydi Laaji Malick sii ma naan ma billahi dama ko amul bu ma la ko nëbbee yal nañ ko doon soxna yi ni ko manit loolu laa ci doon daw si bëgguma woon mukk nga xam si ma toll ndax xam naa ni si boo ma ko joxul da ko amul ah foofu ñu koy waxee Maodo raay bopp Seydi Aboubacar bi am benn waay bu dikk nuyu Maodo jox ko dërëmu koppar te booba jamono bi waa ji dem laata dem am ku dikk déey Maodo Maodo yëkkati dërëmu koppar ba jox nee na tuuti keneen dikk jox ko ñaari koppar nee na bi kookuy laata génn ñaar dikk ku nekk déey Maodo mu fab ñaari koppar yi séddale leen ko maam roqay nee nag sama xol xaw a jóg nee na ma ñëw sëpp ci balako bi naan waay yow koo xam ne soxna ak sa doom a ngi bëgg a dee te lu ñu la jox nga joxe nee na sëpp ba mu yàgg ma seen juróom-ñeenti gëléem yoo xam ne bu nekk ngi sëf ñaari saakuy dugub nee na dem bay romb kër gi ma naan cey waa ji li ku ci amoon ñaari àndaar ba foonde ko nee na waaj a dem bu mu yàgg wàññeeku dikk ni fii la kër Mor Malick fii la kër Rose Sidi ñu ne waaw mu ni fii la Mor dëkk ñu ne waaw mu ni anamu ñu ni ko mi ngi ci kaw mu dikk fekk ko fa ni ko bàyyi dara booy ca méngeeñ moo la jox kii nee na asakaama neuf et neuf di fukki saako ak juróom-ñett Maodo ni ko ha mu ne mu ni ko baax na Roqaya mu ni ko si mu ni ko fabal saako bii nga jox ko sa bàjjen diw fabal saako bi nga jox ko sa tante diw fabal saako bi nga jox ko sa najaay diw di ko séddale di ko seddale ba mu des benn saaku mu séddale ko ci biir kër gi ba mu des ñaari àndaar mu ni ko kon nga rukk loolu xanaa luñ ci mën a def nu def ko ah xoolal xoolal màngasin yi dul witt mukk tey loolaa ko jur ku bëgg dara da ngay def dara loola maam Roqay Njaay jënde woon ànd ak Cheikh Al Hadj Malick muñal ko loola moo waral lii yëpp tey ca loola la bawoo kon nag jigéen ñi ku bëgg dara dangay def dara maam Safeetu Ñang yaayu Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz keroog ba maam Alpha ma yoroon ne Abdou Booli danaa génn àddina ci fan yii 1886. bu ma génnee àddina sama fas wi ñuy wax wul dul gisiri na nga ko takk nga dem jolof nga dencal fa Malick jabar ndax nangam nangam nangam ba mu demee ña ko maam Alfa yebaloon ni ñu may Maodo jabar ndax doomi jaam la ndax jaamu naar la moo tax yàgg naa métti ah. ndax Fatimatu Lansar di Qurayshi yu pire moo jur ba bote fay bote jur Alpha Mayor ak Fawad ñu ne nag comme deret ji laal na ci naar rek jaamu naar la du nu mañ sunu doom jaamu naar li taxoon Alaaji Malik ci muranke moo di jolof bi mu baayoo ak waalo ji mu tayoo ñu xeeb la looloo ju koy waalo waalo jolof-jolof it ku fa sa genn wàll dëkk te ka ca des dëkku fa it ñu xeeb la ñu fonk seen bopp lañu moo taxoon Maodo tumuranke ndax bàyyi ba jolof la yaay ja waalo waalo ñii xeeb ko fii ñii xeeb ko fii waaye ba ñooña bañee soxna suñuy wax aram bonko aram bonko moom la soxna njaay jur soxna njaay biram xujja tam mu jur ko biram xujja ay miiru yu jur ko ay miir yu may jéey moomu moo biram yu mi jur booy jaay mu jur aali booy mu jur roxaya jaay ñoo bokk ndey ak baay ah euh, Ab euh, Alaaji Malick boolewu leen dama ne ay miir yu may ak biram yu may jéey ñoo bokk ndey ak baay ay miiru yu may moo jur biram ku jatam mu jur soxna njaay mu jur aram bokk aram bokk ko jur safeetu mu jur alajaam biram yu moo jur booy njaay booy njaay jur aale booy mu jur roxna njaay mu jur bineew ba kat bi dinaa di mari soog a jëm waaw ah. aram bonko moomu ni ndegam góor ñi bañ nañu may sama doomi càmmiñ ji seen doom safeetu mii maa ko jur fokk ñu may ko ko bañ ko ko mayee togg ko ca fasoo mu ñibb ci gaaya 1887 delluwul moom maam safeetu benn yoon delluwu ko jolof ba biñ ko suul ci tiwaawoon ci kanamu Alaaji Mari Maodo bàyyi ko ci yaayam maam faa wadd xoolal jolof jolof bu dem ca biir gaaya ni ñu aada fekki woo fa ndey fekki woo fa bàyyi amoo fa càmmiñ amoo fay bokk mu ànd ak soxna si doon waalo waalo bu sotti ba bopp 1888 Maodo yóbbu ko ngambu ci le mu ànd ak maam fa wadd ca tool ya ak sama ñoom baay ak alaaji Malick Sarr di magum kër ga ba mu ko yóbboo foofa maam sa féetoo ngi nekk ëmb bu ndaw Maodo di yër alquran ba ak si ci sóoratul fatiri ci min xitmiirin jooju xitmiir ak naqir ak fatil nag jaaxle ci bopp Maodo mu dem ci bibliothèque yi ci ndar doon seeti pour mën ci gindi ko góor gi Mar Diop gis ko ni ko damay dem màkk te bëgg nu ànd mu ni ko awma paas mu ni ko ñetti téeméeri paas fekk màkk dal di yëkkati deux mille francs jox maam sofeetoo nga ca tool yi nekkal fa Seydi Laaji Malik ca maam faa wat fayda bi Maodo demee ba muy taxaw taxawaayu Arafat ca la soxna maam safeetu ca la mucc faat si mi mu taawloo ak Seydil Hadji Malick ca nga mbucc le ñu def ko ci lekkat yan ko sama magu baay bàyyi alaaji Umar wele ñu ñibb si gaaya maam faawaat di ngénte ko tudde ko boppam faatu jooju faawaat la ndax Maodo ñaari faatu la am faat si mi jur sama yaay ak faat si mi mi taaw faat si roqaya ak faat si safeetu ñaare ayda la am ñaari ayda la am astu si Malick mi ak ayda yaasin ma sëriñ aadi doon denc te jur ci Maodo Touré ñaari ummu la am ummul xayri yaasin mi jur samsu ak ummu kulsoom mii nga xam ne mooy magu Alaaji Abdu Tafaat voilà ma ni maam safeetu moomu nekk ak maam faa wadd gisul Seydil Haaji Malick ba am doomam jooju nekk ca tool ya ba Maodo jóge fa Màkka dikk sañ ci njaar nde maam faa wadd faatu ci ñaareelu atu njaar nde seydi laaji malik dem jeli, mam safetu gaaya teggi ko jolof yobbu ko njaarnde fab mam rokay jaay yobbu fa ñom ñaar ñu nek fa nekkin wu rafet ba mawdo wara dukki dal fab mam roqaya dello ko ndar fab mam safetu andi ko tiwaawan demul ba tay jolof nek fofa di jaabante diggante jak saaw ak tiwaawan 1894 ca la mawdo sañ ci tiwaawan andi fa maam Safiyatu Ñang mu ànd ak Seydil Haaji Malick ca metti metti ba kooku moo jur alxaaji Abdul Aziz ku bëgg dara dangay def dara sëriñ Moustapha mii waral nu daje fi soxna ummul xayri sàll yéen ñëpp xam ngeen ni doomi borom barke la doomi wëliyu la ba ko sëriñ Babacar jëlee ca ndar jënd kër gii ñuy wax kër gu mag kër soxna astu ñu tuddee ko ko mu jënd ko 1933 ci loxol góor gi Amath Lo Seynabu moo ko jënd mu jël soxna Ummul Xayri Sall def foofu baraat ci biir kër gi dugal ko fa jëli maam Roqay Njaay yaayam mag la woon te dafa ame woon rhumatisme te ndar sedd mu jëli ko pour indi dénk ko soxna umul Xayri sàll fekk soxna astu sëriñam faatu na mu ànd ak njaboot ga nekk ci maam Rokhaya góor gi amat loo dem jëli maam Rokhaya indaale soxna astu ak njaboot ga loolu moo leen indi Louga ñu dénk ko soxna umul xayri sàll waaye gis nga metti woon na metti goo xam ni mujj na am ci mag ñi ñoo xam ne dañu dem ca Seydi Abubakar ni ko umul xayri ni mu rafle metti na defe naa góor gi Babacar Diop la ca njaxeer ya. moo dikk ni umul xayris daal nii mu masu ko tawatte budul woon dañ ko wax sayda abubakar it lu yàgg yàgg du ko ngaan mukk mu nekk fi doon roqaya njaay di faa wàdd ci cheikh sayda abubakar nekkal ko ci njaboot gi lu nekk nag mu daj ko lu nekk mu daj ko ba góor gi babacar diop dikk ci sayda abubakar wax ko situation bi ni mu demee ak soxna si muñ gi mu muñ te waxul kenn dara te muñ ngir yàlla ak Cheikh Seydi Aboubacar mais Seydi Aboubacar yebal góor gi Babacar Diouf mu jël si ko ñu ngi nu romb gaaru Tiwaawoon maa dugg ba ca biir saxaar ga fekk ko fa ñoom nday safi ñeeg Rokhaya ak ñu ngi xale yu tuuti ñu soog ko yóbbu Dakar bisimilaay boobu ñaari walit la ko Cheikh Seydi Aboubacar fàttil jox ko Babacar Diop mu jëli ko mu andi ko ma ni kooku doon muñ muñ googu ba loolu fekk ko ci kookoo jur borom mbooloo mii ku bëgg dara da def dara ah du Seydi Abubakar ma jur dong nga ko ko may ndey ju liggéeyee ko ko may ak ju koy boppam ak judduwaale lu yoonu kenn nekkul waaw wax naa leen fii mel na ak ni leen maam Malick Sall kenn werantewul ni àggoon na ci wilaaya ci martaba xutbaaniyatul kubra cheikh alhaaji malik kenn werantewul ni àggoon na ci maqaama xutbaaniyatul usma waxoon naa leen ni kubraak usman usma bu ñu àndee bu ca doom jug jógee bu dul asam di akbar mooy li am lii tegtale na ko ba tax yéen jigéen ñi na ngeen góorgóorlu ñeenti doom dong nga am danaa leen ko wax doom ju ci waay bëgg a jur nag na aw yoon wa gisal doomi dama ni ñëpp déglu nga wax ñëpp ànd ak doomi ak diw ak diw ñoom diw de ñu baax la ñu ñu ne ah xanaa ak diw ndey jaar ak doomi yaaxo yu sën yaaxo yu sën mooy kii am njëhal benn te du amuk mucc ak doomi xeebkati tàccu ku ci nekk dafa am ndey jigéen ji nangu ci biir nangu ci biti mooy jur doom joo xam ne bu ne dama ne ñëpp ni ah bu waxee ñëpp ànd ca dafa nangu ci biir nangu ci biti jigéen ji nga xam ne dafa nangu ci biir teggantu ci biti mooy jur doomi ak diw noppal na jëkkër yi ci biir waaye bu ñu nekkee ci biti mu gàcceel ko ak doomi yaaxo yu sën sagal la ci kanami nit ñi te bu ngeen duggee ci biir néeg bi mu gàntul la lépp kooku doom ja dana amul njëlbeen yaaxo yu sën moo di bu tawee yi sax ci taati kër gi dafay gaaw ni jëfa fa jëm kaw ya ca àll ba ni wepp waaye bu ñu amee benn weer rek mu ni bëpp ci suuf yee jóg jëm kaw yaa ko yu sën njël benn lay am waaye doo amul mucc ki nga xam ne dafa bañ ci biir bañ ci biti nag mooy jur eh yéen waa làng gi de tàcciwu leen sol tubéy joo xam ne àgg na ci bëtu tànkam ni yàmb lang mu mu ŋarale tànk yi wicc ndigg la fab loxo ba teg ko ci jubb wi di sëlëx ñi suuf naan xaw ma yaama taxa xaw ma waaw ba tax na yéen jigéen ñi yéen jigéen ñi yéen jigéen ñi may leen ma gis nga ngeen baal ma àq doom ju ci waay bëgg jur rek na jaar ca yoon woowa waaw euh, bi ci des moo di ma di leen wan ngeen gis ak seen bëtu bopp xool leen kanaara xool ganaar ganaar balaa janta soo mu tëri ndax xam liggéeyu ndeyam ndax séq gi bala moo jóg ci tëng gi sunguf su nekk fii daañ ko fëndal tëng ga dafay départ rek mu topp ca kakakakakakakak ba mënatul daw xëx moom ku góor ki mu sof cay jot looloo di li tax fukki nen ak ñaar yi muy nen fokk mu am ca yool te ngootooti bu toj dalee ñu nga ca doom yi céeli yaa ngi koy wut mas yi di ko wut yolaan yi di ko wut wund yi di ko wut fiiru yi di ko wut fitnaal ba mu fitnaaloon baay baa ku fitnaal sa jëkkër sa doom du laaj xool leen kanaara xool leen kanaara fu ko këni gi fekk rekk foofa la ba tax lu mu mën a tojtal téeli du fëgg maf du jël ngooto soxlawul barewul sax koo xam ne ci sa xel nangu na yàppu kanaara noppal ga mu noppal jëkkër ja moo waral loolu kon ku bëgg sa doom laaj noppalal sa jëkkër bi ci des nag mooy jukko yi ngeen war a séye fukki jukkoo ngi yoo xam ne ku ci am benn sa sëy du neex sa doom du baax waaw ñu ngi koy tënke fi ra na nuqi hadaba ba jasa fi ra na faa gi mooy fiir fiir ba mel ni kund rambaaj kër goo nekk boole yaay yaag doom yaag sa jëkkër naw jëf loo def bu doon añ nga yekk sax bëgg ku la gërëm noona lay bokk xeebug nobel alak dund dal tont bare nemmat bare dox ak njaaloog sàcc jigéen ji ci am benn kii rek sa say du baax gis nga wax jaa ngi guddi te dañu soxla rajo bi ngeen baal maak allahumma salli ala muhammadin wa sallim وسير ما وأجمل من ترى مقلوب القلوب صبها مرنا هو سيدنا وأجمل ما تلو المخلوق يا من يمحو حقا أملا والأقل في المثل المثلون يهمه وجله العمل صلى هو سيدنا هو حزم من قرن المحل ذي أسلوب من سيرتب ولمن دخلوا فوس نفل فمآمننا هو سيدنا الله هو أكمل من ترلو المقلوب أعني شيقا قربا وسرا وصحابته حقا وسلوم فمحمدنا هو سيدنا هو أكمل من ترلو قطمان وورا ستو سبقت سلمان عقل أحمدنا هو سيدنا هو أجمل من قرن المقل يا سيل بيت مبنى لتوائف قبول سعي رمل فمحمدنا هو سيدنا هو أزمن من ترنو المخلوق عسى عبد يا كنفا وحوائج شتى جمل فمحمدنا هو سيدنا هو أجمل من تلو المخلوق عجل عجل أقم غدا لعبيدك لا رد الأمل فمحمدنا هو سيدنا هو أجمل ما يمكن المخلوق صلى ربي أذكر الصلوات على فيه الأصل فمحمدنا هو سيدنا هو أجمل ما البخلاء ثم الالي سابي الكرماء وهم العلماء كلهم بطل فمحمد هو سيدنا هو أجمل ما المخلوق فمحمد هو سيدنا هو أجمل من ترن مقل فهو مبنى هو عيدنا هو أجمل من ترن مقل حرم حلاه نبي كريم وإمام الرحمن الغلام أي طيبة وهذا المقام